ni siggi dafa su ma nee siggi jot na ñu ni ma yow rek sëggoon ma ni leen juum su fekkee ne dañoo nekk si dëkk boo xam ni xale yi liggéey da leen a jafe laay Dieye ubbi entreprise am jël leen kon yaakaar naa ne siggi la woote si bépp délégation boo xam ni danga ñëw ànd ak sama leader bii di Abdoulaye Dieye bis ni ki tey ma jël sama tànk di dox porte par porte néeg par néeg lal par lal di leen wax ni Ablaye Dieye mooy l'homme qu'il faut à la mairie de Thiès Est di leen wax ni lépp loo xam ne ndaw daf koo soxla muy ci entreprise muy si liggéey muy si li nga xam ne dañoo dafa jot ñun ndaw yi ñu commencé di defal suñuy yaay di defal suñuy papa di defal képp koo xam ne dafa ñu yaakaar Ablaye Dieye lañu war a àndal mu yu gunge ñu ba loolu di suñu objectif ñu atteindre ko tey su ma doon dem jàmm gën dinaa woo sama frère Abdou Mbow na ko buur ñëwul du ma taxaw moo doon dem Daaru Salaam si la dinaa woo sama frère Mamadou Ñing wax ak moom na ko boo ñëwul du ma dem parce que ñoo bokk gëm-gëm ñoo bokk idéologie mooy taxawu Thiès mais aussi jàppale le président de la le président Macky Sall donc euh, merci mon frère Maodo sa temps jafe na sa temps xat na wante bàyyi nga lépp ñëw taxaw def témoignage si man aussi ñu ngi nuyu waa Cité Lamy ñëpp avant tout dañuy ñuy papay Tafa di suñu mag di Ousseynou eh, man ak moom ba ñuy xamante xam woon sax moo jur mais engagement bi ma ko gis si derrière le président Maodo Malick moo tax ma gën ko jàpp donc euh, suñu papa ñu lay nuyu doo am na beneen papaam boo xamante ne ak moom ba sama bureau di sama frère

donc jarul taxaw ki nan fi la far la laa far dañu booloo ñu ñëpp ñu àndandoo liggéey ngir créer rupture ngir créer un renouveau politique à Thiès donc loolu rek mooy suñu ambition pour taxaw rompre l'oisiveté des jeunes euh, accompagner les femmes sur leur autonomisation donc je pense que ne tey ku nekk créer ce mouvement rek wala nga taxaw ni damay jàppale euh, le président Macky Sall rek ambition mooy développement mooy nu may def ba dëkk bi suqaliku donc Ousmane euh, sa ambition xam naa ko sa gis-gis xam naa ko donc tey war nañoo mën a ànd liggéey pour yokk pour dooleel li nga xamante ni moom lañ fi fekkoon suñuy frère euh, def ko ñu gën a ànd ak ñoom renforcer ko ngir mën a atteindre suñuy objectif